lay déggee ni yaay nekk ganuk D'clique gi man ak Clique gi yëpp euh, ñun dañu yàkkamti woon waxtu wi téléspectateurs yi itam yàkkamti ko bëri na ay laaj yoo xam ni euh, dinañ la ko jébbal bu ca kanamee tuuti waaye bàyyi la nga nuyoog sunu xarit yi sant yàlla juli mhm. ci Seydouna Mouhamed sangu-sang yi mhm. sant Sëriñ Tuubaa Mbakke mi tax nu tal ko bu baax jërëjëf jëf Abdul Xaadir Mbakke jërëjëfati Sëriñ Abdul Xaadir Mbakke mhm. jërëjëfati sëriñ Abdul Xaadir Mbakke Pape Cheikh. gumba bu la nee nañ tànnante bul nangu. dëgg la dafa jóge ci xeex ku ñeme dañ laa déey. wala xeer na ca poos ba. waaw jàmbaar amul ku ñu dimbalee ko waaye sant naa yàlla ci réew mi danaa ci ñëw ak yow waaye sant ci jataay bii ma toog yow. day doom ju baax. di nit ku yàlla baaxal. liggéey liggéey boobu ci réew mi buñ la nee kaay wuy ji ko da sawar a ñëw. ak Makumba Bey mi dafa naa ni yaa ma njëkk woo bi ma bi bi ma daanu ci oto bi matul 15 minutes. moom nu mu ko yëgee Makumba. ku ku ku la njëkk a woo nga ni ma moo la woo. waaw waaw dañ doon hésité nañ ko woo nañ woo ñam àndal. Ah, waaw bi bi amee rek. waaw bi accident bi amee dañ ma woo rek ma ma ne ko maa ngi nii man a peex de mun ma papa kon nag de li baax mooy ñu jël la léegi nga wax. da ko doon seet. ndax cofeel wala xibaar nga doon wut en tant que ñaar yëpp parce que bi ma déggee ba ma déggee ni moom la bi ma ko. journaliste bu graaw la bi ma ko non non bi ma ko woowee li ma ko njëkk a wax dama ko seet. mbaa mu ah, waaw. xam nga seet ba ma dal nag waaw ba dara dalul la. man ko sant yàlla fii may wax yow de na ma nekkee woon na ma duggee woon cooto balaa nekkee. alhamdulilah sant naa yàlla bu baax. sant réew mi mënuma ko nañ la dugal ci ligne bi ni ko ay ca ndax booba. fekk na réew mi yëngu na waaye bi ma génnee li ma njëkk a def mooy jël sama téléphone woo sama waa kër neen na dal ci kanam tuuti daañu wax lu amul ak lu am waaye maa ngi nii dara jotuma def naa sob yàllaa koy def yàlla mooy musalub jaam yàlla musal la ma sant naa bii ma àndal di Cheikh Abdoul Khadir Mbacké dal naa ci la ma wooyee ma dugg waaye par Cheikh booy ànd ak jóg di topp toppal ku ko mat baa ku la bëgg baa ku la yëg président Macky Sall def na ci man lu rëy bëgg li muy neex neex yëga ko gën satal bëgg muy ñàkk yëg bu la nit ki bëggee amul sa yëg sa jëf as góor da nga koy dafa daal di wàññi ministre bi nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf bi yor santé ne ko dellul xoolal ma peex nan ko tëg bët rek ba xam lu ko daal bi mu ñëwee moom ba gis ma dafa sant yàlla mun ma dama ko yónnee léegi message ci sa ni nga ni nga taxawee ànd ak meeru aña meeru meeru euh, Matam. Mm. Wuro Sogi yëpp ak Farba Ngom la. fu accident bi amee exactement. ndulu maa ji. fa ngeen daanoo fa mu dëkk fa la bàyyam dëkk ndulu maa ji. ndulu ba ma duggee ndulu maa seen laa génn rek daanu ci oto bi waaye sama sama sa ba mu may génnee maa ngi wax lom te ndulu maa ji parce que dafa lam sama xel. ci accident bi yëpp yaa ngi wax lu baax. rafuma mm. rafuma damaa damaa xam yàlla. du bind ci fukki fan rek ci juróom. xam ki ma àndal muy Serigne Touba. moo tax rafuma. te lu am yàlla. far ba ngoon maa ngi koy nuyu maire de Agnam. mais bi ngeen demee ba tiim euh, ba jib ndulu maa ji googu. ba ah. accident bi war dugg naa fa ba génn bay dem ba ci rang-rang bi. waaw xam nga safoor yu ndaw rek. maa ko sëñ Modou Mbacke dool Dolli maa ngi koy ñaanal Balla si Modou si Mbacke Maaram oto bi dafay doublé benn minicar ma ne ko yow rang-rang kenn du ci doublé gisul pom bi gisul kanéo euh, bi mu da mu dal ci ah, daf cee dal daf cee dal wadd ah. waaye yàlla mais moment boobu exactement loo loo loo yow ak yow yow ak ñi nga nekk maa ngi giñ sëñ Bamba yàlla rek laa yëg ak sëriñ Touba ah. Cheikh Abdou rek laa doon wax Cheikh Abdou Khadir ba xool sama yaram تي سن بي با خامني دالنا خامني دار دالو ما ما ген بي ماي ген لا سان في توج دينا ساني واي ما فاتنيكو بكري كوما جاي غان سان مام كرو بي مي باك لا دور غون لا تير سي سامبي تاني دام تانكام سامبي كينو كير غو داو سي كاوم غا جار سو ما سي لك او نيام سو تانغي داي وتاخ لوخوم ني مبتي سامبي ndax jam-jam yu ñu ko jam moo tax nga ne sa jaan wàcc na waaw man sax man ci ànd ak président ci ànd ak président war koo kañ def ci accident ca ndulu waaw waaw te te président jar ko Farba Ngom nag taxaw ci taxawaay bu rafet ndax ba ma ñëwee añam damaa sot damaa farak moom mm-hmm. nit day sot na mbokkam dafa def lu rëy añam lu kenn deful ma téye rajo ba ni ko def nga lu kenn deful Macky Sall defal na la lu mu deful kenn waaye def nga lu kenn deful président big ca ak Mamadou sek mi nga xamni ni dafa jàppale Farba di doomu anam jënd ay ambulance jox ko. Mamadou sek lu ko war def nako ko ci accident bi mom itam ñu taxaw yoyu la fatali ko fatali ko ñi ma àndal fàttaliku réew mi waye fatali ko ñaanal Cheikh Mamadou muntaha matul fanweeri mi do ab taaw woo ni ma sëñ bi ne mi ngi seet noo def waye jam rek bima ma matul 15 minutes. سنتين بكم شيخ أبو خالد ليجي ليجوا جسم كر ماما هو من خبر ليش برسين بكم ما منا فوق النابو ولا ودك ويجي ده لول لما تشتغل فوق النادي ولا ودك ويجي لول دال دال مجن ذك برسنا وول ما بحن تفهم من برسنا واو تفهم ما تفهم ما تفهم دلهم ما بابا بابا دم يو جل تلفونهم هو سامي سخرا كلهم واحد يوم نيل سواي غني ما نكون ما نكون ما نكون نار درجتكم ma ne ko ne ma ne ma eh, la dañ la Pape Ali Guèye ni na loué loué loué hélicoptère lañ la jël si Pape Ali Guèye maa ngi koy sant. hélicoptère la jël si. déedéet dama ne président du ma ñibbi dara jotuma su ma ñibbee ñu ne damaa daw géwél du daw. ba ci ëllëg sa mu xool ma ne ni ma sans waaye ñëwal ñibbi man maa la yeewil sa bopp. waaw ñëwal parce que bi ngeen photo ak moom ci image yi ñuy gis nii ak bandaas bi. waaw euh, defe naa dafa wër Sénégal. dafa gis nga ko mi nii waaw. photo baa ngi lii dafa wër Sénégal waaye lé lé lé lé mi ngi may mi ngi may tooj léeg-léeg mu ne sa bande bi man ko bépp lay band moo motak, moo tax bi photo bi génnee today, yi moom Wah, ñu tuddee ca bandaas ba la waaw ca bandaas apa? bandaas ba xam nga ba ah, sa man ko saa waaj sa man ko deret jee bari wallaahi <laughs> mun ma mu ne ni ma dara du la jot eh. bala ngaa ñibbi da nga xam ne jar naa mais defe naa tey sant yàlla am na ndax ah. dem jee ju tool nii nga dund ko ba toog di ko nettali ba ciy reetaan sax waaye euh, sant yàlla ak sama sama doom yu baax yi waaw sant yàlla mais gërëm it nag Youssou Ndour ci taxawaayam bi tey mhm. waaye gërëm it sama directeur bu bopp bugaan mhm. léeg-léeg mun ma ah, peex ba dara jotuma mhm. man ko dara jotuma waaye sama waa ji bal tànk yi <laughs> yow it nag ay baat ci boo tibbee sànq ba sa waay di des booy wax mun ma dootu ma mun ma pex nga ni dafa ree ba tëdd waaye munu ma pex bugguma dal dal est-ce que du moo ci bës a tànk sax ba ah, ah, ah, war naa ba ci bi tànk moo mun waa pex man ko ma man ko ay san waay ndax danga koo jege ca moom nga jóge mu ngi ci bi tànk ndax ànd ak Macky Sall waaw baa du bugaat moo ci bës a tànk dama koo jege <laughs> mu ko di ko gërëm nag moom itam ci taxawaayam <laughs> gërëm mm-hmm. Sénégal yëpp mm-hmm. ñépp amoon njàqare Sénégal yëpp a tiitoon kilifay diine wallaahi Sénégal yëpp a tiitoon Cheikh Serigne Cheikh Tidiane bu sëñ Abdoulaye Alamine mhm. moo woo ma mhm. sëñ Ousmane Sow Rumde xalifa Rumde jóge Rumde ànd ak waa Rumde waa Rumde ñëw nañu ñëw nañu mhm. ak Cheikh Makhtar Cheikh xalifa Ngourane bi may daataa ko ñëw peex fekk naa mu taxaw ci buntu kër gi di ma xaar ak waa kër Cheikh Mat Jawaar njaboot yépp ñëw seena ba xalifa ba dafa ni nañ génn ci penc mi ñaanal peex Cheikh ma Cissé. imam Cissé woote ca Medina Baye. pap lii tax na ma takkuwaat. jox saa bopp Sénégal dootu dootuma mer. moo tax ñu invité la xam naa. dootuma mer taxawaayu taxawaayu homme politique bi. waaw dinañ ci waxtaan ci kanam. daan ci dugg ndax yàgg nga ak chef d'état yi. Mhm. fukki at ak benn nga am war fas ci kanamu président Léopold Sédar Senghor.